voilà yéen a ngi gis ah donc euh, ay autorité xamuma ñan la exactement mais au lieu que ñu jël seen seen yoon mais dañoo jël sens interdit bi gis ngeen mooy ñu nekk ci côté bi à gauche donc di daw vous voyez donc ce qui est anormal voilà gis ngeen oto yëpp instant bi sens interdit lañ jël di daw bloqué télé bi yëpp donc muy doon lu doy waar fii Kër Massar après donc. Euh, li nga xamantene mom moy euh, lancement projet promo jet bi wala gis ngeen li xam ngeen c'est interdit ñom ñep dañu waroon jël benen sens bi mais jëluñu ko donc buñu paré ci lañ jël sens bi di daw wala gis nga tali photo yep bokk benn sens ci deux deux deux fois deux voies donc euh, yéen nga koy xol bu baax li Sénégal fi mu toll tey ñu war ko xex mais gaay xexuñu ko wala vous voyez donc gis ngeen de li moy Sénégal. wala mbokk yi Sénégal gis ngeen na ah, affaire bu doy war gannaaw euh, bi ñu defee suñu lancement projet bi nga xamantene bi mom lañu jox jëm ci walu salté bi ci mbeubes muy promo jet ki nga xamantene bi mom moom artiste comédien bi mag ci Sénégal ni koy wax Mamadou pen donc da ngeen ko gis ni ci mbedd yi mu ngi dox waaw moo nekk ni sol rouge di ak tengada bi day dox ak tank mom kese and amul sax auto bu fi yek donc mu nekk lo xamantene bi mbokk dafa doy war lol waaw aar bi ci réewum Sénégal ndax mu ngi dox am déet donc daal doy na waar artistes yi sax bu ñëwee ci cérémonie yu mel ni dañuy dox yoruñu oto kenn kenn kenn kenn taxu leen gëdd muy lu yéeme gis ngeen ko moo nekk nii waa UCG